waaw salaamaaleykum ñi leen nuyu baax baax di leen siyaare leen ñëpp ngi siyaar weer wax day wax ngeen dem si jiitu bu mag boobu Dieng Efficace Officiel waaw kay yéen wax xoolu seen wax dañoo képp koo xamante ni jotuma tamit na bàyyi numéro 76 349 24 99 waaw Sonko bi Mame Mbaye moom dafa am lu ma ci leeral tuuti rek loo xamante ni ci entre ñaari citoyens yi Sénégal yi lay wax waaw ñëw ma fi pour ay waa Pastef laa bokk ak wala Sonko nga farloog yooyu mais dafa am no senegal di doxé no xamanteni jamono ji da dafa xaw xorom dafa xaw xorom ci lan moy xam songo dafa tumal mamay nya ci 29 milliards mamay nya dem porte plainte ko ñu war leen tek ci di xam système senegal ni mi doxé bokku waaw ben moy ke ñaar am ñom ñaar bu ñëw dañoo war tek ñaar ñepp ñu tok wax ci lu wër ñom ñaar ñepp dañoo war a teg kee diglu kee diglu ke mu wax baxan ki kii li wax fu ko tek kii li wax fu ko tek mais li ci xorom mooy Mame Mbaye da xamne ne ne moom mooy gagné bi xam nga lo xaw xorom ci mbir moy jëmi mambay nya mom moom demagut te xamanteni ni ba aduna bi dugg li fek Macky Sall ngi mom projet bi du ko perte mom xamne mom projet bi lu ci manti xew mom da koy gagner xam nga tamit lool ben affaire la bo xamanteni ni maam dafa xorom lool dafa xorom lool dafa damaa yaakaar nag damaa yaakaar dama damaa damaa yaakaar nag euh, ñaari citoyen buñ toxé dañ leen war diglu ñoom ñaar ñepp ñu wax ka ca am dëgg ko ne ndax ñoom ñaar kenn jugut Burkina kenn jugut Côte d'Ivoire déedéet ñoom ñaar ñëpp ay citoyen sénégalais lañ boobu nag li ma yaakaar mooy dañu leen war a toog ñoom ñaar ñëpp ñu teg leen diglu leen kenn ko xool ba xam kan moo ci nekk ci dëgg ku nekk ci dëgg ñu àtt ko lañ ko war a àtt mais fii li ñuy gis mooy ku demagut procès xam ne mooy gañ ndax maam bi ñaa yaa ngi koy dégg mu tàmbali naan Sonko li mu tuumaal nii bu dee lu amut maam dañ lépp ay benn yëpp dañ ko jël yow yaay jël ay benn Sonko Yo yaay yo yo yo kan yo la may kanam gu leer ba ngay yo di jël ay ñaan ay yo yo yo rek yo yo am ci alal ak yo dañ ko yo affaire bi nañ koy yo yo yoon mi rafet Sénégal gi yo yo yo waaw kay ñun yo yo yo yo nay rafet rek ndax dara juru yo ñaawal dara juru yo ñaawal bu yo yo yo ba yo sa morom la nay yo ci yoon wa yo waaw kay lii mooy ñi nga xamante ni baax na ñi nga xam ne yor place sen place kenn du fa taxaw di jënd kenn du ko waxaale kenn du ko def dara ñuy jaay kenn du ko fa lay nekk bañ marchandise ba julé sen bop ngeen ne wuti ay ñaan dana wuti ay ay ay bayra yu for bayra càngar gu doy war gaa non noonu gi ci lepp loy dox ci lépp gi ngeen maam xéti parfum yi muy rek juroom ñaari xéti parfum yi muy rek ci xeeti buur yi fi nekkoon te amoon doole ak ak xeeti nit ñi fi newoon bari woon sañ-sañ ci yooyu noonu lañ koy booleel gis ngeen bii moo gisee mooy aaruna aaruna kenn ku ne xamoon na fi ni fi nekk woon xaw na ba tey gis nga ko ay ñoom xeeti parfum yi mu ànd yi yëpp ngi nii kii ci Aïssa xeet yi nii moom lay ànd juróom-ñaari xeeti parfum yi mais cangat gu yéemee ngi nii bu doy waar doy waar numéro bi 76 la 349 24 99 ku ma jot nga bàyyi na message whatsapp. ngeen di gis nii bii lépp mooy cangat bi mooy cangat loxo sa yaram lépp lu mu fekk ci yow moo xam lu def def ba yàgg moo xam ba nga juddoo ba léegi da ngay gis xam ne bi mu tàmbali liggéey gër yoon bu baax lañ liggéey ay mbiram yëpp arrêté wala ko tàmbali kër wala ko benn mbir ba tàmbali cee réussir. ñu ko loo xam ne dootu def def dara bu jëlee kii moom lañ naan bo bombe atomique bi bii nii boo ko laaj lépp lu fekk sa yaram da koy